naaj wi tàng na te itam yonent bi daf daan wax ni bu naaj tàngatee na ngeen féexlu waaw nee na ndax tàngaay bu metti nee na ci fuuf te ndiku jahannama la jóge nag bu tàngatee nee di leen serlu ku yërëm njaboot la waaw te bu tàngaay dikkatee daal da ngeen serlu serlu nag bare na waaw tooyal morso ci ndox def ci sa loos ci serlu la bokk jël uppukaay upp ci serlu la bokk wattandiku fa naaj yoo ëppe ci serlu la bokk <coughs> ku bari woon yërmande la